ginnaaw CRD bi nga xam ne amal nañu ko Jurbel mu jëm rek ci waajtaayu màggalu sëriñ Abdou Lahad Mbacke comité d'organisation bi ci teewaayu sëriñ di Mbacke di xalifa sëriñ Abdou Lahad amal nañu ndaje àllarba ji ñu génn ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin 2017 ci Touba mboolem jabetug sëriñ Abdou Lahad teewoon nañu ci ndaje moomu ak taalib yi nga xam ne dañoo bokk ci comité d'organisation bi sëriñ na Mbacke kàddu yi la jotal ci turu sëriñ Sidi Mbacke. nee na tey jii sunu bokkee toog fii fi wetam bisub sunu jàmbaar ja moo ñëw jàmbaar ja nga xam ni bëgg ga sëñ tubaa desalu ca woon dara sopp ga sëriñ tubaa yi desalu ca woon dara kooku la bisam ñëw muy nii ko Ablaye mbay waxe ñaar fukk fan ak ñett ci korite di talaata di le 18 juillet 2017 bis boobu nag jàmbaar ji liggéeyal sëriñ tubaa rek la fi nekk woon ndax moonu waxoon ni sëriñ tubaa dafa wax yonent bi ne ko axdimuhu ilaa duxoolil janna daaril xiraari wal munaa wal minna ca laa jóge ne moom itam ci loolee la fas yéene moom it di ca jaar di liggéeyal sëñ tubaar rek ba ba ba ba muy dem àjjana dil ko fekk ca loolee la nekk loolee la sëñ Sidi di woote moom yi itam sëriñ Abdoul Ahad Mbacké ñenn yi doon nañ ko wooye sax bâtisseur ndax liggéey yu ko yi nga xam ne amal na ko ci dëkk bu sell bii di Touba doono nit yarkat ak koo xam ne day jubbante nit ñi ak taalibe yi jëme leen ci njàngaleem Serigne Touba. màggalam kon dinañ ko amal fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet 2017 ci Touba waaye tamit ci mbooleem kër Serigne Touba yi nga xam ne dañoo nekk ci bitim réew bu ñu sukkandikoo ci comité bi nga xam ne moo yor wàllu organisation màggal gi.